bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin monsieur le président de la république yaag délégation bi nga àndal bépp noo ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sunu mag di sunu sëriñ di sëriñ Touba a Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xafidahullahu wa raa te rakkam yore kàddoom de Cheikh Mouhamadul Bachir teewal ko fi ànd ak yow ci liggéey bi kon kàddu yi kàddu yi li ci jiitu mooy sant sunu borom tabaaraka wa taala sant sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu sëriñ di sunu yaakaar tey ëllëg di a cheikh ahmad bamba xaadim rasul ridwanullahi alayhi wa nafaana bi li nuy sant yàlla mooy dafa am lu sëñ Tuubaa ñaanoon wax ne lil Moustapha nawaytu maay jot suna taxul xadaa way ni Ahmadu yéeneem moo doon ñëw di yeesal di ronewi yoon wi nga xam ne moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xàlloon sëñ Tuubaa dellu ñaan sët yoo xam ne dañuy teg seen tànk ci alxuraan ak sunna di fedd li sunna di ko taxawal loola mooy ku mel ne Cheikh Mouhamadul nga xam ne yoon wépp dañ koy bége di ko puukare woo ndax seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al ulamaau warasatul anbiya nee na waroom xam-xam yi ñoo fi wuutu ñoo fi représenté l'ensemble de prophètes bu ngeen demee ba gisatu leen yonent waroom xam-xam yu mag yi nga xam ne moo xam muy ñi ñi fi xàlloon njër ñi moo xam ñi fi sos turuq yi waaye waroom xam-xam yooyu ñoo fi wuutu yonent yépp ñooyu nag ci la Seex Muhammadul Muntaxa bokk di mbégteem yoonu wépp di mbégteem diine jëpp di mbégteem Afrique yëpp di mbégteem umma islamique bépp kon nuy jiital ci kàddu yi kàddu yi sant ak kàddu yi ñaan di ñaan sunu borom tabaraka wa taala al aliyil mu may ko fan wu gudd te may ko wér te yàggal ko fi monsieur le président de la république ci turu sunu sëriñ boobu de Cheikh Mouhamadul Muntaxa te Cheikh Mouhamadou Bachir teewal ko fi ak turu mboolem njabootuk Sëñ Touba tàmbale ci sëriñ si di Mbacke Abdoul Ahad mi jëwriñam ak mboolem njabootuk Cheikhul Khadim noo ngi lay yëgal sunuy cant ak sunuy ngërëm bu baax ndax sëriñ bi ak i bokkam ak i taalibeem amuñu lu dul sëriñ Touba yaakaaruñu lu dul sëñ Touba toppuñu ko dul sëñ Touba kon nag. bu la sëñ Touba ñoree ba liggéey yu mag yii nga def nga def ko fi ngir jëmmi sëñ Touba ak ñi ko fi nekkal kon yoon wépp ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax ndax yoon wi nga xam ne moom nga fi def muy autoroute Ila Touba yoonu murid yépp nga ko defal waaye Sénégalais yépp nga ko defal ndax li muy jur ci njariñ kenn mënu koo xam te yemoo ci ndax hôpital bii nga def tey ci Touba di hôpital boo xam ne capacité bi ak àgg na ci 300 personnes man fee nekk nga xam ne ni Touba gën a rëy ci Sénégal ci le plan démographique gannaaw Ndakaaru hôpital bi noonu la gën a rëy ci mboolem hôpitaux yi nekk ci biir Sénégal loolu defal nga ko sëñ Touba defal nga ko Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ko fi nekkal waaye defal nga ko yooru murid yépp defal nga ko Sénégal bi yépp assainissement bii nga xam ne it sumb nga ko ba joxe ci ndigal ñu fas ko yéenee def ci biir Touba incha allah yàlla dana yàlla mën naa def bu sottee xeeti gàllankoor yi fi doon ci xeeti mbënn mi yépp mën naa wàññi ko bu baax. centrale électrique bi nga xam ne sumb nañ ko def di ci naccee def ay milliards lépp bëgg dëkkub Sëñ Touba bi leer te mel nam war a mel ba mboolem. bokki taalibe yi bokki jullit yi ak ñi fi ñëw ku fi ñëw sa xol sedd ku fi ñëw dara du manqué usine de traitement des déchets moom it xam na ne sumb nga ko fi parce que fi yéene def loolu it lépp di njariñul population bi di njariñul réew mi di mbégtam sëriñ bi di mbégtam bokki sëñ bi di mbégtam taalibe yi yoon yi nga xam ne itam sumb nga ko fi ñu war ko dolli ci yoonu autoroute Ila Touba la lépp liggéeyal sëñ Touba nga ci jublu ak wut mbégum ci ko fi nekkal di Cheikh Mouhamadul Muntaxa kon nag ci turu sëñ Mouhamadul Muntaxa ak mboolem ak ay rakkam ak i njabootam ak cheikh yi ak taalibe yi ci teewal Cheikh Mouhamadul Bachir mi ko fi teewal noo ngi lay jottali sunuy cant ak sunuy ngërëm bu baax a baax ak sunuy ñaan dafa mel ni addis bi dafa am addis bu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon dafa mel ni sëriñ bi waxtu nekk maa ngi koy bàyyi xel waaye yow mi nga xam ne yaa yore wàllu adduna bi yaa ngi koy bàyyi xel sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa dafa wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati nee na kenn ku ne ab sàmm nga te kenn ku ne danga nga ñëw fi sama kanam ma laaj la la nga doon sàmm addis boobu nag li tàmbali ci boroom këram ak njabootam tàmbali ci kilifa diine ak ña ko yaakaar tàmbali ci chef d'état chef d'état ak état ba mu nekk ak ñi ci dëkk aaya boobu ñoom ñëpp la ko moo ñoo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ko te loolu buñ ko defee kenn ku ne la ngay sàmm mooy ñi yore wàllu spirituel mooy ñi ñi yore wàllu temporel ku ci ne la nga man ak la nga xam nga jëf ko ba doomu aadama yi am tawfiix dund dundin bu rafet da nga daje ngërëmul sunu borom da nga daje ngërëmul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëy Muhammadul Muntaxa bokkoon na ci ñi gën a dégg beneen addis boo xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ndax yonent bi nee na doomu aadama bu faatoo ab lëgéeyam jëfam lépp dagg na ba mu des ñetti yëf ilmun yantafiu bi mooy xam-xam boo xam ne xamoon na ko daan ko jàngale wala mu bindi téere ñu di ci jariñu aw amalun saalix wala jëf ju baax joo xam ne mbindee fi yàlla yi ña ngi koy jariñoo lu mel ni lii lu mel ni hôpitaux yi lu mel ni centrale électrique yi ak lépp loo xam ne jëf la joo xam ni doomu aadama jëf na ko te moroom yi mi defam di ko jariñoo di ko jëfandikoo gannaawam yonte bi neen ñaar yooyu mooy fekki doomu aadama gannaaw bu mu faatoo ba ko ñetteel nag mooy waladun saalih doom ju baax juy jëf lu baax di ñaanal ay waajuram yonte bi nee nag lu dul ñett yi bu nit faatoo tooyaba ji du ko fekk ci bàmmeelam lu ma ñett yooyu rek loolu nag noo ngi sant yàlla bu baax ndax Cheikh Mouhamadul Muntaxa xam gi mu ko xam nga xam ni amul benn bëgg-bëgg amul jenn ju dul liggéeyal sëriñ Tuubaa ci njabootam te su ma nee liggéeyal sëriñ Tuubaa ci njabootam njaboot gu deret gi ca la ñu bokk waaye njaboot gu pas-pas bi ca la ñu bokk liggéeyal Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mbooleem jullit yi ak liggéeyal doomu aadama yi yëpp waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin bu nu delloo ci alquranul karim danoon xam ni sunu borom dana ko fay te sunu borom dana la fay ndax suñu borom moo wax ci alquran karim ni wa qul li amalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun nee na yéen gëm yaa way way gëm yi jëf leen lu baax jëf leen lu baax bu ngeen ko jëfee man sunu borom danaa ko seede seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana ko seede ak l' ensemble des ñoom ñëpp daañ ko seede way gëm yëpp daañ ko seede kon nag dunu guddul kàddu yi dañu yeesal suñuy cant ak suñuy gërëm ci yow président de la république ak mbooleem ñi lay jàppale yeesal suñuy ñaan di ñaan suñu borom tabaraka wa taala al aliyil qadir moom mi nga xam ne dara tewu ko mu may la kattan ak ndimbal ak tawfiq ba li nga yéene liggéeyal sëñ ci dëkkam bii ak ci yoonam bii ak ci réew mi nga def ko na ko bëgg ci sunu borom fay la ci ngeen ji pay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.